jërë ngeen jëf juróom-ñaari sage ca conseil constitutionnel ñooy bomb ci yéene kay yi seen dogal bi ñu joxe démb mooy mbambu ci journal yi bi l'observateur mi ngi ñuy wax ne waa conseil constitutionnel kase nañu décret bu Macky bi ba noppi delloo ko coow li nee nañu élection présidentielle yi waroon am ci réew mi 25 février 2024 ñu dàq ko bëggoon ko yóbbu 15 décembre loolee mënut a nekk ndax dëppawul ak constitution bi ñu ne constitution bu Sénégal ni muy sage kilifa yi gàllo organiser élection yi nañu taxaw ci bu Vox Populi nañu juróom-ñaari sages yi nañu dogalu président Macky Sall bi jëmoon ci reporté wote présidentiel nee nañu processus électoral bi ñu tàmbale ci réew mi nañu ko bàyyi mu wéy décret bi njiit réew mi jëloon mu doon abrogé convocation bu col bi conseil constitutionnel annulé na ko ndax nee nañu fa ñu ko teg du fu wér liberté wóor Sud Quotidien nee nañu mooy juróom-ñaari sages ya ca conseil kase nañu organiser ay ba tax na ñoo ngi sàkku ci kilifa yi ñu jàpp beneen date nu mu gën a gaawe Walf Quotidien bind na les sages kastu maanaam Macky Sall la mu móoloon ca décret ba lépp la toj te ñu ne ko teg ci weddi Macky Sall ba weddi waale assemblée mi woote woon loi bi point actu nañu conseil constitutionnel rejeté na décret bi Macky Sall defoon rejeté loi bi député yi woote woon ci assemblée nationale direct news ni mu jàngate mbiri présidentielle a nekk Soleil national ne ko nekk na kay élection présidentielle yi waroon am ci réew mi février du mën a am ci date boobee li waa conseil constitutionnel wax mooy nañu xoolaat beneen date nu mu gën gaawee ngir organiser ci wote yi source waa nañu te muy lu wax ji wax ji mooy élection présidentielle yi waroon am ci réew mi février du am mi ngi ñuy wax moom journal bi nañu décret bi président Macky Sall defoon ngir reporter élection présidentielle ndax magistrat Cheikh Ndiaye bokk ci ñi siège li ko waral journal bi nee nañu mooy tuumay corruption yi ko waa Parti démocratique Sénégal di toppee ak plainte gi mu plainte ñi koy tuumal mbirum guerre ki gën a ci yëf bés bi gis na ne mooy Karim Wade journal laay fa mel ne ku naan ko ak Macky ndax décision bi waa conseil joxe Macky Sall da mel ne ku ñu sotti ndox mu sedd boole ceekin moom président journal bi gis na ne wéet na lool ci xew ci réew mi fa la ñaawloo doxalinu ñi waroon a taxaw défendre Macky te kenn dégguleen fenn Abdoulaye Sow ne bari na ci réew mi ay nit yoo xam ne bu ñu déggee monsieur ministre baa ñu dégg monsieur le directeur yàlla ak président Macky moo tax waaye ñu bari ci ñoom fayu naar bi xoromam ndax ñoo ngi songu président Macky di ko attaqué ak di ko alde alde nu ne ñi waroon a taxaw défendre ko tey kenn gisu ñoom ñëpp a daw laqatu ji Abdoulaye Sow akuk dal ci réew mi jar na ko ñu jaare fa dem ci xët mu njëkk journal libération mi xëy di ñu xibaar libéré gi ñuy libéré ñi nekkoon ci kaso bi te ñu tudde leen ay détenu politique ñi ñu jot a libéré mi ngi ñuy wax ñan ak ñan la mi ngi ñuy xamalit ne mbir yi mu di libéré gi du yam ci ñoom rek ndax am na ñeneen ñu ñu war a libéré tey ci ajuma ji Seneinfo